Euh, waa foofu nag dafay jar ñu taxaw leeral bu baax a baax. ah waaw jar na leeral de ndax nit ñi fi ne nii ñu ngi ñu ngi commencé di kii de. effectivement parce que tax mu jar na leeral de waaw parce que bu ñu xoolee Bamba. Mhm. Euh, loolu yëpp dafay nekk ci yenn médias yi. ànd ko ak euh, yenn position yi diabolisation bi nga xam moom la ñuy def par rapport ak liggéey bi nga xamante ne bii gouvernement bi ñu koy def. bu ñu amul lu ñu wax dañuy jàpp ci benn mbir boo xamante ne bii dañuy ah dinañ jàpp ci lii pour diaboliser li nga xam mooy régime bi jaxase leen Sénégal yi pour mën foofu nag dama fay taxaw di leer chargé de mission yooyu. Mm-hmm. Baba ma fàttali. Mm-hmm. Euh, Macky Sall. Mm-hmm. ñaata chargé de mission dafay amoon. ah de trois cents. ah waaw bari woon na am na si ñoo xam ne mosul gisee ak ñoom. mosul gisee ak ñoom tout à fait. mosul gisee ak ñoom. tout à fait tam dañoo jot seen salaire fi mu nekk. tout à fait mais le président Bassirou Diomaye Faye réduire ko ba li mu ci doon matu sax soixante quinze. ah soixante quinze matu ko sax. ah waaw léegi. mais mais mais sëñ Aliou soixante quinze nag xaw na bari ah. mais waaw foofu laa jëm. <laughs> mais bu ñu comparé trois cent ak soixante quinze. Ah, ah. te kay dana fal trois cent yoo xamante ne bii pour pour doon caser ñi nga xamante ne bii mooy euh, clan politique am. mais ah, mais li tamit du du casé tamit kii ah mais ay coordonnateur GPS yi tamit <laughs> suñu àll na. Ah, foofu foofu laa jëm foofu Bamba ay cawaa ah, ñu ngi lay déglu. gis nga Bamba régime bi. Uh-huh. les tous les soixante quinze yi nga xam ne mën nañ leen euh, fële gis nga li ma li ma mën a wax. Mm-hmm. te mu wóoroon mooy. am na ci d' ailleurs ñun suñu coordonnateur GPS départemental Babacar Diagne ci la bokk. waaw justement Babacar mu ngi noonu. Uh-huh. te kooku mu nekk wax dëgg yàlla euh, man damay wax sax. maa ngi séntu lu gën a kawe loolu sax par rapport ak moom parce que ci engagement am ak li ci parti euh, ba ci événement yi nga xam amoon na fekk tout ça. ah que <laughs> euh, bu tuuti tamit de. non di nga millions ak 4 4 ah <laughs> <laughs> sa ah, ah. mm, agul sa 3 ah. millions. ah non si 3 millions ak kay moom bu ko wax kay moom waxatoo dara. ah te gis nga te gis nga ah. ma waxal la rek. waaw de mission yi nga xam ne ñoom lañu ko nommé nii. Mhm. ñoom ñëpp dañuy liggéey. ah du bokk ak la fa daan am. Ah, ñoo xam ne bon chargé chargé de mission rek. ñu xam nga dañoo woote jub jubal jubanti. ah loolu la ñuy wo loolu la ñuy woote ah. moo tax saa bu jëlee trois cent. indi ko ba soixante quinze parce que chargé de mission mënul ñàkk ci li nga xam mooy mooy atalante euh, euh, comme gouvernement bi. tout mais na nekk loo xam ne njëriñu Sénégal lay doon te gis nga Bamba ma wax la son excellence président Bassirou Diomaye Faye le président du parti Pastef notre président Ousmane Sonko gis nga lépp loo xamante ni bi lu ñuy def la billahi wallahi c'est pour l'intérêt bi Sénégal parce que amul lenn loo xam ne bu ñu def la pour ñoom seen intérêt li moom li moom leer na ma ah, parce que man connaissant l'homme Bassirou bari am nañ ci yaakaar hmm. connaissant l'homme Bassirou Diomaye Faye am na yoo xamante ni bii si si non non loolu moom loolu moom ñu bari am na si moom yaakaar gis nga moo tax mm-hmm. maa ngi koy wax démb rek euh, notre coordonnateur GPS euh, départemental ma ne ko di ngeen liggéey ba dee mm-hmm. ah soixante quinze yëpp dañu nar a liggéey ba dee ça c'est ça c'est sûr moom loolu moom ñun personnellement am nañ ci information bu wootee jub jubal jubanti déjà rupture la par rapport ak trois cent yi ñoo nekk ba soixante quinze en plus de ça ñoom lañ doon def mooy dañ leen nommer ñu ñii dañuy liggéey. loolu moom am nañ si yaakaar. effectivement loolu mooy def mooy moo tax ma mais ñii buñ dikkee ne waaw xool liñ ñoom liñ dafa bëri mais nañ xool la fi hmm. amoon. ak lii am ba pare ak lii am léegi. waaye après ñu xool tamit aussi ndax ñeen nañ doon doxalee ñun noonu la ñuy doxal. tout à fait trois cent soixante quinze yi ndax trois cent yi nañ doon doxalee la ñuy doxalee. tout à fait euh, gouvernement bu <laughs> avant avant avant nomination euh, gouvernement bi taxaw quoi dama taxal ma da nga fi gis ministre wala DG bu ñu nomee muy daw ne bàyyi. mu daw ne bàyyi ah waaw loolu day parce que da nga te d'ailleurs ñoom ñu si bari bari Fadilou démb rek mu ngi koy wax day nekk bureau presque huit heures la fay xëy dafay nekk ba vingt deux heures vingt trois heures. ça c'est vrai. te loolu bari na ci amul samedi amul dimanche. non mais loolu loolu sax c'est c'est à l'image sax du président ñun am nañ ay sources yu leer kenn non le président de la république mais même ses collaborateurs dañ koy wax tu vois. même son directeur de cabinet nga xam ne le ministre donc euh, nu mu tudd ministre de l' enseignement supérieur Mary Teuw Niane da koy wax mhm. nee na président boo xam ne vraiment day liggéey ba yenn heure yi maanaam sax dootul sax ay collaborateurs am sax dañuy kii mais moom toujours n' pas donc donc pour firndeel rek donc li nga wax ne am nañ yaakaar parce que loolu loolu li nga waral ne mooy dañoo xam charge bi nga xamante ni moo tege seen kaw parce euh, li ñuy wax Sénégal dañoo yónni yàkkamte yu bamb mhm. ñun war a def avant ñu dem ci élection te ci biir cinq wax dëgg yàlla euh, am nañu yéene euh, li ñu waxoon Sénégalais lu ci bare bari ñu teg ci seen bët pour ñu mën ñu dolli beneen mandat euh, comme yaa ngi wax sànq Sénégal deux mille cinquante boobu. nañ am nañ yàqeen ci mën nañu ak Sénégalais yi foofu mais à une seule condition. Hmm. leen dig ci premier mandat bi ñu taxawee. bi suñ ko taxawee jàpp nañ ne dañu loolu mooy test bi mais nag sëñ Alioune am na tamit dafa mel ni loo xam ne lu ñu lu ñu xaw a seetlu la. le président de la république mu ngi koy wax un projet hmm. ça se vulgarise hmm. mais ça se défend du moins mais vulgarisé par des actes alors euh, tout euh, mu mel ni opposition bi ñoom toujours ñu ngi profito n'est-ce pas donc si yenn si yenn détail ci yenn question suma suñ ko mënee wax léegi vraiment damay seetaan télé may gis vraiment réalisation yi nga xam ne nii n'est-ce pas donc le gouvernement mu ngi koy def donc ci vraiment loo xam ne nii peut-être xëy na ci weer yu néew moo xam yaxanal koomu réew mi wala yaxanal xaalisu réew mi n'est-ce pas waaye yoo xam ne vraiment donc ñu ngi koy mais dafa mel ni a l'impression dafa mel ni kenn kan wanewu ko ba tax na opposition bi toujours dañuy saisiru n'est-ce ci yenn détail bu ñu ko mënee wax comme lii ne ay nomination yi wala peut-être xëy na Euh, si yenn point yoo xam ne peut-être yàgg na mu mel ni dossier ASER bi ak dossier peut-être xëy na euh, nu mu tuddati entre le ministre de de de l'assainissement ak le le mooy dossier ONAS bi toujours n'est-ce pas donc ñu ngi siy jafandu alors donc loolu euh, li tax mooy dañoo gis ni dafa mel ni il n'y a pas en tout cas ci au sein peut-être du parti Pastef donte ni am na ñu ngi gis en tout cas ñenn ñi nga xam ne toujours ñu ngi génn dem ci au niveau ci télé yi di wax ak Sénégal yi di leen wax lu leer à de par exemple Khadim Bamba Fall je pense ak ñu bari ak ñoom Cheikh Bara Ndiaye maanaam ñu bari daal ñu ngi kii mais daal dafa mel ni jeunes yi par exemple dafa mel ni fasuñu trop trop trop n'est-ce pas donc sur les réseaux sociaux war défendre donc projet bi war a Euh, wala vulgariser nest pas donc projet bi li gis mooy peut-être xëy na euh, comme niñ liñ liñ ko daan gisee peut-être xëy na di dàggasante tuuti ak opposition bi peut xëy na di leen defal tuuti promotion uh-huh. alors lan moo waral loolu waaw Bamba euh, côté réseaux sociaux yi moom ba léegi ma dama jàpp ne parce que te lañ gën a actif ci réseaux sociaux yi sax lenn kay laa mën a nangu mm-hmm. moom mooy que l'opposition dañoo nekk Euh, en parfaite collaboration ak certains médias yi nga xamante ni bii euh, dañ fee nekk. tout à fait lank ne duñ fay impôt. Mm-hmm. mairie le gouvernement ànd ak ñoom di diaboliser. léegi nag kuy dégg loolu da jàpp ne loolu moom mooy réalité bi. Mm-hmm. mais gouvernement bi li muy liggéey ñu ngi koy fësal donte ne nag naam euh, li nga wax am na. parce que mm-hmm. am na ci d'une part loo xamante ni bi peut-être miinoon nañ ko. effectivement tout le temps doo nekk ci plateau yi di kii. léegi peut-être ñi nga xam ne ñoo ko doon def. doon défendre le projet. doon doon doon doon doon activé ci li nga xam mooy mm-hmm. Mm-hmm. tey dañ dañ leen nominé. tout à fait te poste yi ñu leen li euh, nekk seen kaw ak li ñuy daj. Ah du matin soir. parce que amati temps boobu di dem si. non effectivement léegi ñu jël benn repli boo xam ne il ñu am ñeneen ñoo xamante ni ñoom la ñu war a génne pour ñu dem di défendre loolu. peut ci euh, ci phase boobu la nekk. mais bientôt loolu incha allah dina am. incha allah di fàttali rek on c' est que loolu la nag c' est que nag euh, c' est nit ñi dañuy fàtte ne vraiment régime bi naa fekk six mois ou un peu plus mais peut être il faut comprendre les sénégalais peut être xëy souffrance ñoo yàgg ak tamit peut être xëy na li yàqu moo bari woon par exemple douze ans les douze ans de règne en tout cas de de de Macky n' est ce pas donc douze ans dafa bari ba li yàqu dafa bari surtout aussi les trois dernières années wala sax buñ ko mënee tënk événement au deux mille donc euh, vingt quatre maanaam li jot a xew yëpp maanaam dafa indi ay yàqu-yàqu yu bari ay rey mhm. emprisonnement maanaam lu yàqu ba tax na fi ne Sénégal yi dañoo yàkkamti sax peut-être euh, nest am tuuti n'est-ce pas donc lu ñu gisagum mais pour dalal seen xel wax leen ne leen en tout cas li ñu gisagum mhm. le gouvernement wax dëgg yàlla moo ngi euh, liggéey pour génne Sénégalais yi si coono boobu mhm. ñu bañ a yàkkamti waaye itamit moyens yi nga xam ne peut-être xëy na ñoom ñoo ko ñoo ko war a taxaw lu si mel ne assemblée nationale parce que président mm-hmm. assemblée nationale la mën a basé wu mm-hmm. pour dëggal li ñuy wax n'est-ce réalisation mm-hmm. mais comprendre juste que ni rek ni sénégalais peut-être xëy na dañoo xaw a yàkkamti moo tax waaw dañoo dañoo dañoo xaw a yàkkamti bamba euh, loolu c'est normal comme li war sànq moo ci nekk maanaam dañu yónni yàkkamti ñu mais effort yi ñuy def déjà gouvernement bi mu ñëwee tak avant même pas premier mois a def mooy les paysans nga xamante ne mën naa ne bokk na gën a souffrir ci ci ci ci ci nguuru Macky Sall. Mhm. bor yi ñu amoon muy bor impôt yi ñoom la ñu fay. donc nekk te pourtant euh, d' ailleurs son excellence expliqué na ko lu bëree bëri. tout à fait euh, fi ñu ba fay ko metti na trop. mais il fallait le faire parce que mënu woon xaar. boobu ñu dem ci li nga xamante ni moom mooy pêche bi licence de pêche yi nga xam moo nekkoon pour que pêcheurs yi mën a gisaat seen bopp ci li nga xam mooy pêche bi ñu ñëw aussi tegaat ko ci table bi point boo laal état ba bu ko bu ko mënta récolte totale aussi mu mu mu mu xool nu mu ko nu mu ko réorganiser ba nga xamante islam jël stable ba nga xamante ni Sénégal yi dinañ mën a noppi tuuti léegi nag ci biir six mois yooyu mënuñ defandoo lépp mënuñ defandoo lépp euh, a doxal tout à fait ñu doxal tey d'ailleurs direction yoo yoo xam ne parce que direction tëbatëb laal ko noonu parce que boo ko laalee am loo xam ne ko mën a lañ bëgg effectivement loolu yëpp Sénégal yi foog ñu muñul ñu xam ne ndànk-ndànk petit à petit nañu dem ba liñ leen jaay ñu mën koo def waaye bokk na ci li ko mhm. li koy gën a yombal li gën a yombal li gën a yombal Sénégal yi leen dig ñu mën def élection yi parce que bis ñu ko joxee tey ñu am majorité à l'Assemblée nationale tey li nga xamante ne bi moom lañ diglante ak Sénégalais yi muy ay projet de loi yoo xam ne leen ko mën a jébbal loo xam ne c'est pour l'intérêt du Sénégal danañ ko ko mën a yóbbu tey euh, les représentants di peuple bu fekkee c'est pour l'intérêt du Sénégal dinañ te man jàpp naa ne gis nga foofu aussi ma ñëw. ni lu ma leeral les Sénégalais li amoon à l'Assemblée nationale dafay dafay dafay dafay jeex. am nañ si yaakaar waaw jub jubal jubbanti bi ñuy wax. tout à fait dafay dem ba à l'Assemblée nationale man wóor na ma ne élection législative yi bu fekkente ne jox nañu majorité à l'Assemblée nationale le gouvernement wala le président de la République bu fa indee projet de loi boo xamante ni ce n'est pas pour de PASTEF. am nañ audace tout à fait bañ ko voté xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que au sein de notre parti noonu lay doxee. tout à parce que dafa am dafa dafa dafa am euh, lu doy waar ci am ci biir. Mm-hmm. mooy lan dama koy wax chaque jour ma ne euh, des fois nga jàppaat pour nga ne non lii xamoo sa lu mu doon quoi. parce que liñ na liñ tàmmoon a gis mooy koo xamante ni bii moom mooy moom parti bi. lettre à la neex lay def tout à fait bi demeewul noonu. incha bii am nañ koo xamante ni moo jiite bi. mais Bamba muy keneen Sénégal lambda bi jaaykatu caaf bi kenn ku nekk da doon génne dërëm ñaar dërëm doon def ci parti bi dërëm ak ñaar dërëm boobu mu doon génn def ci parti bi moo ko permettre mm-hmm, mm-hmm. lu nekk la ñuy dégg bureau bureau bi bien sûr wala section communale <laughs> tout à fait mais bu ñuy wax ak ñun wala Kolwaay bu ñuy wax ak ñun dañu di dégg noonu parce que tax dañoo bis bu ñu daan laaj ay cotisation mm. dañ daan génn seen dërëm ak seen ñaar dërëm yooyu dañu jox ñu def ci parti bi à fait seen dërëm seen ñaar dërëm yooyu tey moo indi tey le président de la nekk fi mu nekk te président xam na ko bu baax a baax tey moo indi tey ki nga xam ne moom mooy euh, le président bi tey loolu loo ko indi tey kon moo tax Sénégal yooyu nga xamante ne bii seen dërëm seen ñaar yooyu nga xam moom lañu doon dajale mhm. moo ñu moo def tamit ñun nga xam ne nekk tamit parti bi mhm. nekk ay responsable suñu biir dañuy bëkkante bu baax parce que kenn ku ci nekk euh, ma ko mën a waxee euh, li nga am ci parti bi la sama morom am parti la parce que li nga ciy def la ciy def. tout à fait kii mën a def cent mille kii def kii def un mais kii def un franc kii def cent mille moom mooy indi tey ki nga tey dafay law ba ci kaw tey ki nga xamante ni bi tey assemblée bu ñu ko joxee tey tey ji le gouvernement andi loo xamante ni ce n'est pas pour l'intérêt des Sénégalais les députés ko duñ ko bon duñ ko bon te vraiment li nga wax dañ koy firndeel di ko dëggal ndax euh, démb damay seetlu lu buñ ko mënee wax conférence de presse MODAP. Hmm. MODAP n'est-ce pas loolu mouvement des doomu daara de Pastef vraiment wax dëgg yàlla man personnellement ma am ci mbégte ndax man c'est la première fois ma gis parti politique fii ci Sénégal vraiment jox gëdd benn mouvement boo xam ne maanaam ay doomu daara ay sëriñ nga xam ne maanaam lañ leen doon lañ doon xaar si ñoom ku am ngénte ñëw ñu tudd hmm. boo fekkente ne da ngaa am dëj nga ñëw kat wàcce kaame wala ku kuy kuy kuy kuy dal dal këram woole maanaam daal mel ni ñoom dañ leen te dañ leen ne toog leen fële féetewoo lool mais wax dëgg yàlla vraiment ñu gis ni cette fois-ci Pastef donc choisir na nest pas donc ay doomu daara ñu siy nuyu euh, sëñ Tahir Tahirou Fall hmm. nga xam ni moom moo ko jiite nest pas te ñu gis si tamit gis nañ si tamit soxna waaye tamit ci beneen wàll sax tamit ñu gis ni aussi tamit liste Pastef tamit investir na buñ ko mënee wax li ñuy wax la carte d'égalité des chances mm-hmm. ñu gis benn ndaw soo xam ne wax dëgg yàlla mu ngi ci chaise roulante ñu investir que ci liste nationale mu leer ni kii bu yàlla defee mu nekk député moom dina fa représenter en tout cas course boobu mu bokk vraiment ñu gis ni daal wax dëgg yàlla ay changement yu rëy ak une autre façon en tout de faire hein Alla Kane le doyen Alla Kane justement merci nga xam ne man bokk ci magu Pastef muy doyen en tout cas vraiment daal ñu gis daal vraiment ay changement yoo xam ne vraiment ci régime bi mu leer na ne effectivement comme ni nga ko wax dañuy nekk ay député yoo xam ne askan wi lañ fi nekkal duñ fi nekkal ab parti politique wala lu ñu fi nekkal président boo xam ne mhm. day ñëw am lu mu xalaat am lu mu bëgg mu mel ni lettre à la poste yow da ngay ñëw parce que gisoon nañ fi député yu fi amoon député yu daan toog man su su texte de du ma ko xool du ko lire comme Macky comme pré njiit Macky loolu la bëgg rek dama naan waaw vraiment ñu naka naka nga jàngate lool. waaw xam nga li wax sànq gis bu baax bi mooy liste Pastef mhm. ni nga ko ni noonu la demee maanaam dañu jël ci couche sociale bi yëpp liste la boo xamante ni bi ñëpp tey bu yàlla dogalee tey liste boobu tey jii tey ñu am majorité à l'Assemblée nationale danañ fa gis jaaykatu jën bi danañ fa gis jaaykatu caaf bi danañ fa gis euh, màgget boo xamante ni bi am na plus de quatre-vingts ans danañ fa gis euh, ki nga xamante ni bi euh, entre guillemets ko waxee way laago la mais mm-hmm. ñooñu waruñu leen beddi ci société bi te man loolu te man loolu dafa yàgg nekk sama xeex gis moo def moo gisee nekk une brave dame la mm-hmm. nekk une brave dame macha allah même mi ngi ci chaise roulante mais li muy def passé Touba macha allah bokk na ci investisseur bi ma gën a neex. macha allah tout à fait déjà mu nekk jigéen ba pare en temps aussi. Mm. Euh, mu nekk sur chaise roulante. macha allah ñu def ko ci liste yi tout à euh, mu nekk maanaam couche boo laal rek. Mm. passé liste passé bi da nga ko gis ci biir. Euh, te loolu moom mooy société. société tey ki nga xamante ni bi tey mi ngi nekk ci benn ci benn ci benn ci société bi boo ko boo ko tabalee député député boobu dina ko fa dina fa teewal couche boobu. te loolu danañ ko gis ci assemblée nationale bu fekkente ni am na ci yaakaar bu baax a baax que Sénégalais yi dinañu ko jox sax euh, muy une première ci liste boo xam ne danañ ko gis. tey bu fekkente ni tey liste passée bi jàll une première fois ñu gis euh, handicapé bu nekk à l'assemblée nationale te d'ailleurs loolu mon frère euh, honorable euh, Samba Diouf pourtant mi ngi ko doon wax rek ci plénière yu mujj yi di wax ne ici à l'Assemblée nationale d'ailleurs dafa am loo xamante ni inégalité la parce que euh, assemblée bi déjà ni mu bindoo tey on handicapé mënu fi yéen tout à fait déjà mi ngi moom déjà mel dafa xamoon sax xamoon na macha allah mi ngi ko da ko wax rek ma tikke quoi ma ne il a raison il a raison والحب ذو العصف والريحان institut Rayhan di jàngale alquraan arab ak xam-xamu lislaam yi di ko jaarale ci jumtukaayu xarala yu bees yi fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi mën ngeen fee sàkkoo xam-xam ci loxoy ñu xarañe fànn wile ngir bindu ci institut bi jokkoo leen ak ñun ci jokkookaay yi ñu leen bindal fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazziban تكذبان saaru système law daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñun ñu am talent la ñu doon ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat nga ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu ni songu ab waqfu waqfu la ñuy taxawal lan mooy waqfu waqfu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu lool mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme kenn na ko société indilee bénéfice mm-hmm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bii man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii laa koy def ci biir kon mbokk jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyam képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom danga naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki da nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala Orange Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 ak lu ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax mille francs dana bari ci moom amaana ab cinq cent la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole la ci kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii kon gaawal boo boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga man ko cee boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan laa